alimadol madol tema way pàcc nungolo daal ubul ubbul comptoir ñun tam ñu ci mos waaw waye di ñëw di dem rek lolu baaxul no ci yor ci yor ci deug nga nek da gis nañ ni liggey sénégalais xam nañ li def mën nañ liggey xalé nangu nañ liggey buñ jogé ñana naan nangu ñu jeunes yi bëgg nañ liggey nañ indi lepp sénégal lepp luñ soxla ñu mën ko am fi bir sénégal na xolal ma ñay lim def rek ah bàcc jëlal ma yi ah xol xam nañ li liggey bu set wecc la li liggéey bu sedde wax naa ko sànq maa ngi naan amet maa ngi dem ci ndaanaan bu mag xam dañ koy naan manjaay manjaay an te muy liggéey liggéey bu set ndax man ñëw naa gis li ngay liggéey rafet na trop macha allah dafa rafet lii waaw xam nga liggéey moom maanaam ñun Sénégal nangu nañoo liggéey mais lépp loo nekk da nga ci dem ak sa moyen bopp di débrouiller tey place bi bi ma koy sanc xam naa ne su ma ko waxee dina jaaxal ñu bari ci 20000 francs laa sanc place bi 20000 francs ma njaay may door a tàmbali ci loolu laa sanc pour ñaax sama morom yi ñu gën a góorlu tey loolu yàlla suturaal na ma ci ba am naa ci teraanga wax dëgg yàlla waaw parce que lii lépp vingt mille francs yooyu moo ko jur nit lépp loo nekk rek danga koy gëm bëgg ko wóolu ko tamit def ci pasteef waaw bañ a xeeb dara lépp loo nekk selal ko yàlla dina la jàppale waaw metti woon na trop nag parce que valeur bu toll nii koo ne vingt mille laa tàmbalee dina la xoolaat waaw mais àdduna moom li naan xëcc bu daggul dikk rek yaa ko wax sànq nek ci bu daagul dikk fii daal loo soxla daal da ngay bay sa tol tok xaar mu ñor ma ñaa comme émission nak waxtu bi dañoo xot émission man seetaan jeex na fu mu nekk nii rek dila laaj la ngay tagu ñu la doon ak ak ñan ngay gëreum waaw euh, ma ngi gëreum sama yaay parce que wax deug yalla son na ci man jàppale na ma lool di gëreum sama soxna tam aussi waaw di ñaanal sama papa fa mu tëdd yalla na suuf oyof ci kawam waaw di gëreum nak sama client yi nga xamne ñoo jënd ci man ñepp maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que tamit ñu neex a defal lañu parce que liñ naan moom ku ñii ma dañ laa déey ñoom ñoo ma déey wax dëgg yàlla waaw maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ndax ku lim juum waaw di santaat sama yaay nag bu baax a baax a baax a baax maman ma jàng sant bu baax a baax a baax léegi fu mu nekk ni rek ma jaan ñiit la setaan boobu léegi gis nañ li ngay def rafet na trop macha allah fu mu nekk ni xanaa ku la bëgg a jot am ci baax rek ci man nan lay def ba jot la joxal numéro téléphone yi bu ñëwee ba ci arrêt ji rek bu ñu woowee ñu jël si ko 77 euh, la 081 44 62 77 081 44 62 loolu mooy numéro bi waaw bu ci wootee rek fu mu nekk ci arrêt jumaa ji nañ ko jël incha allah. émission bi daal dafa neex macha allah neex na yëg naa ci sama bopp parce que lii tam daf ñuy gën a ñaax ñu ndaw ñiy liggéey parce que lii dafay jàppale kuy liggéey ndax fekk liggéeykat nga ne ko kaay ma woon la àdduna moom loolu ko la ko defal amoo fayam émission bi daal gàcce ngaalaama neex na ca kaw ca kanam rek. neex na ca kaw ca kanam <laughs> waa dégg ngeen doomu kër Mbaye Fall boobu loolu doomu kër Mbaye Fall loolu noonu mu wax fu mu nekk nii xanaa di leen sant di leen gërëm yéen ñu doon seetaan seen biir émission wane sa talent fu mu nekk nii rek eh, ñu ngi leen di bàyyi ba beneen yéen ñu bëgg ñu defal leen yéen ñu bëgg wane seen talent seen biir émission wane sa talent bii nii ñu fekk si leen woote leen ci numéro yooyu affiché seen ban écran woo ñu jokkoog ñun ñu fekk si leen defal leen yu mel nii ak yeneen li ma doon tey ma way pàcc ndongoloo